assemblée bi nag xam nga da am lu amoon te amatul moo tax faw mu bëri ay coow daa am lu ñu bëggoon a jàllale te ñu gis na lii du yoon donc loolu moo tax ñoom itam ñu taxaw fippu daal di daal di ci opposé wu kon ñu ci bëgg mën a wax rek mooy ne du nekk loo xam ne lu yomb la c'est-à-dire maanaam projet yi ñu fi daan indi ñi di ko lu ci bëri nekk loo xam ne xëy na nekkul lu jaadu wala nekkul loo xam ne xëy na lu avancé loolu la population bi ñi di ko wate muy jàll loolu bi yoon dootul demee noonu ndax bu fekkee da nga ko attaqué fekk mu waajal boppam ci lépp ci ci ci ci ci côté yëpp su boobaa boo attaqué li ngay mën a def rek mooy nga daal di rek kii ku na xam ne euh, mairie bi bu dakaar bi euh, ni ci ni ci ni ci ni ci gouvernement bi yàggee teg bët donc bépp possibilité bu mu jàpp ne bu ko defee dina ci jot da koy def am na loolu bu ko defee moom bu fekkee mën naa am benn nag bu ñuul benn nag bu ñuul mu mu ray ko mu saraxe ko su boobaa yàlla mën na ko dimbale ci lii nga xam ne moom la jëm incha allah. moom ñu seetal ko aajowul mu ñëw ndax li ñu soxla ci moom bu ñu ko amee mën ko seetal li ñu soxla ci moom comme information mooy turam moom ak santam turu yaayam ak santu yaayam loolu rek la ñu soxla bu ñu amee ñaar yooyu rek fu mu mën di nekk bu wootee dañ koy mën a seetal. bu ñu amee ñoom ñaar seeni tur ak seeni sant rek ñaar ñi nga xam ne ñooy bëggante wala ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk ci ab sëy te am problème euh, maanaam maanaam ñii seen relation lu dëggu la par exemple ku ñëw ne kii dama ko fas yéene def soxna gëstu na loolu xëy na lu lu dëggu la ci moom wala boo xëy na da nga àndoon ak moom mu wan la mbëggee dem ba ci biir mu wone leneen te yow amoo pas-pasu bàyyi yu mel noonu foofu lañ koy jëfandikoo wala ñaar ñuy sëy te am problème ci seen diggante ba ñaari garante laa ci joxe bu fekkee déposé goo dama naan la bàyyil ba ma def ñaan bi ba noppi nga dem déposé da ngay déposé rek daal di jot say papier moo tax kon bi mënul ñàkk dégg nga loolu mooy ñuy dugal ci xam-xam biddiw mënul ñàkk faw nit ki maîtriser ko xam nit ki ban biddiw la bokk ndax nit ñi ci ñetti biddiw yi rek la ñuy judd biddiw boo xam ne nayire la maanaam boo xam ne dafa leer ki judd ci biddiw bu leer bi addinaam dafay neex maanaam du am benn jafe ci addinaam maanaam lépp lu muy sumb rek loolu day nekk lu jàpp jàppandi facilement am na ku judd ci biddiw bu lindim crise kooku nag mooy ki nga xam ne bu ñaan lawul addinaam lépp ay tolof-tolof lay doon dégg nga maanaam ay ñàkk ay wéré di xol bu naqari dugg kasu génn yu mel noonu waaw waaw loo dugg dem day échec kooku mooy ki judd ci biddiw bu bu ñuul bi. ñuy déglu ci biir euh, suñu actu TV ñu am mbégte saa su nekk ñëw seet si Serigne Dramé ngir waxtaan ak moom ci tolluwaayu réew mi waaye itam ci xam-xam bi ko yàlla dénk te mu ciy dimbali jaamu yàlla yi Serigne Dramé ñu lay nuyu di la bàyyi ñu ñuy seetal. bismillahi rahmaani alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa man wala wajhal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida fa radiallahu taala anil habdil qadimi ridan yasmulul ala wa thawil mahaba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi lay delloo ab nuyoo waaye itam di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ak fu ñu mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaanal yàlla rek yàlla def dal ak jàmm ci biir réew mi waaye itam def ko ci bitim réew wuy jaaxle itam ak lu mën di sabab seen jaaxle yàlla yàlla teggil leen seen jaaxle yàlla yàggal fii sunuy kilifa diine yi te e, kàttanal leen ba seen yéen ñi mën koo yeggale fa ñu ko bëgg yeggale ci kàttanu borom bi incha allah. sa xam-xam kenn dootu ko nattale ba tax loolu dinañ ci wax waaye dañoo war wax ci tolluwaayu réew mi. Mm-hmm. ak jafe-jafe yi nga xam

moom moo doon am toujours rek li ñu tuddee majorité absolue bi nga xam ne maanaam bu bëggee dogal dara euh, lu facile lay doon ci moom maanaam lu yomb lay doon ci moom pour mu dogal ko euh, yoon bi nag assemblée nationale bi dafa ñëw ànd ak beneen appareil boo xam ne nag bokkuloon ak bi fi bi fi nekkoon léegi bu fekkee ne parti au pouvoir bi amatul majorité absolue bi mu amoon pour bu bëggee dogal dara euh, mu yomb ñaareel bi itam mooy euh, wàllu opposition bi dafa mel ni ñoom itam dañuy amaat euh, beneen radicalité maanaam dañu amaat beneen xarkanam kanam ci maanaam député yu bees yi nga xam ne ñëw nañu fa muy ñu ràññee ko ñoo xam ne laataa ñuy doon député sax xamoon nañ leen ci wàllu bañ ci wàllu xeex ci wàllu défendre seen i idéologie ñu mën ci cité ku mel ni Guy Marius Sagna donc gis nañ sax <laughs> réaction yi mu am bi nga xamee ne Eh, donc mu ngi yenu ixni bi ngir rek xëy na daa am lu ñu bëggoon a jàllale te ñu gis na lii du yoon donc loolu moo tax ñoom itam ñu taxaw fippu daal di daal di ci opposé wu kon liñ ci bëgg mën a wax rek mooy ne du nekk loo xam ne lu yomb la c'est-à-dire projet yi ñu fi daan indi ñu di ko lu ci bari nekk loo xam ne xëy na nekkul lu jaadu wala nekk loo xam ne xëy na lu avancé loolu la population bi ñi di ko wate muy jàll loolu bi yoon dootul demee noonu léegi nag su fekkee dootul demee noonu nag il faut que kon coow moo koy lal coow moo koy lal nag dëgg la waaye ala kulli xaalin ci ak dal rek lay mujj ndax bu fekkee ni nit ki da nga ko attaqué fekk mu waajal boppam ci lépp ci ci ci ci ci côté yëpp su boobaa boo attaqué li ngay mën a def rek mooy nga daal di reculer donc kon euh, li ñu koy li ñu def rek mooy ñaawlu li nga xam ne moom moo fa moo fa am pa nag maanaam euh, ñi nga xam ne ñoo taxaw opposé wu ci li nga xam ne moom lañ bëggoon def te te jàllul te te du yoon boog donte mën mënee nañu ba forcé ba jàllale ko ba indi fa gendarmerie ba ñu wote ko euh, dégg nga waaye taxul nag mu nekk lu normal te ñoom député yooyu ku mel ni ñoom Guy Marius Sagna député opposition bi li ñu def moom lañ ñu war a def parce que nit ki saa yu gisee lu jaadoo di rek ak fu mu ko mën di gisee yonent bi dafa wax ne am na ñetti position yu mu ci mën a taxawee c'est-à-dire bu dee ko am kartan maanaam pouvoir mën ko dindi ci loxoom mu def ko su ko mënul te am kaddu te ñoom kàddu lañ leen dénk foofa ñu wax ci nag def ci lañ ci war a def yow nga naqarlu ko kon ñi nga xam ne xëy na amuñ jot seen kàddu jotewul te amuñ pouvoiru yooyu liñ mën rek mooy naqarlu ko kon ñetti position yi yëpp dafay mel ni ñoom feeñal nañ ko foofu te loolu rek lañ doon xaar ci ñoom vraiment. coow coow coow mhm. Mhm. waaw waaw waaw xam nga coow li nag boo ko xoolee. je mix ma politique maanaam yëf yi daanaka politique rek moo ko te xam nga politique daanaka li ci bari ñaari ay calcul lay doon euh, ku ne xam ne euh, maire bi bu Dakar bi euh, ni ci ni ci ni ci ni ci gouvernement bi yàggee teg bët donc bépp possibilité bu mu jàpp ne bu ko defee dina ci jot da koy def du du dooriwul ci part defe naa kaaw xalifa ñëpp gis nañu ko am déet donc kon waaye li am rek mooy Euh, ab moom moom moom yàlla dina ko ci génne ci kàttanu borom bi incha allah ndax du demee noonu euh, am na nag ay ay ay ay taxawaay yoo xam ne war naa am ci wàllu ñaan ak ay serax bu ko bu ko defee incha allahu taala borom bi dina ko ci génne waaye daal euh, yaakaar bi ci parti mooy dafa nekk nit koo xam ne ku am courage la ci wàllu politique. ku am itam parole la maanaam kàddu maanaam bu waxee faw nga déglu ko ku mel noonu nag defe naa dafa nekk sakk ci jàppale ko dafa nekk sakk ci dimbale ko bañ ko bañ ko saraxe noonu rek bañ ko sacrifier donc kon ñun ñun personnellement dañ koy jàppale ci ci li nga xam ne côté boobu la ñu la ñu ngir yàlla may ko ndam ci li mu jëm incha allah te dina ci am. waaw. lekk dëgg. Mhm. Euh, mhm. fa meexe bi meexe bi. voilà am na am na loolu bu ko defee moom bu fekkee mën na am benn nag bu ñuul benn nag bu ñuul mu ray ko mu saraxe ko su boobaa yàlla mën na ko dimbale ci lii nga xam ne moom la jëm incha allahu taala waaw bu fekkee ne suñu mettant en essence yeggee na ci moom ba mu def loolu incha allahu taala yàlla mën na ko dimbale incha allahu taala mu mu mu mu mu gagné procès bi incha allahu taala bu soobee yàlla waaw am na am nag wuutee waaw ñu nit dañuy jëfandikoo ñaar yëpp nag dañuy jëfandikoo seet dañu jëfandikoo listi xaar seet nag boo ko bëggee def eh, ci ñun xëy na bari nay façon am na ñuy tëni am na ñuy seet ci ndox yu mel noonu mais ñun ñu ngi sukkandiku ci li ñu tuddee xel mu ramli ñi jàng man ba usul xelmu ramli daañ xam loolu am xelmu ramli xam-xam la boo xam day jàngale seet dafay dugg nag ci biir xam-xamu biddiw ci lay dellu moom xelmu ramli bu dee listixaar nag mooy li nga xam ne moom la yonent bi jàngale mooy nit ki dafa am lu nekk ci xelam lu mu bëgg a def xëy na dafa bëgg a waaj yoonu tukki bëgg a xam yoon bi ba xam dina baax ou dafa bëgg jënd benn terrain xool ba xam foofu njiglaayam la wala déet yooyu yëpp lu nit war a seet la dégg nga yu mel noonu su boobaa nag listixaar lay jëfandikoo mën na ko jëfandikoo comme mën na jëfandikoo seet waaye listixaar sarta bi mooy li nga bëgg a listixaarlu da nga koy préciser nga xam ko même bu fekkee ne da nga koy def loo nit ko naan nangam ji laa bëgg nga listixaaral ma léegi na su ko defee moom day julli ñaari rakka ak ñaan ya muy àndal su ko defee mu tëdd guddi bu jullee ñaari rakka jàng ñaan ya muy jàng alaa kulli xalin bu tëddee guddi yàlla dina ko wan lu leer ci mbir moom nga xam ne moo ko tax a jóg kon loolu mooy listixaar moom bu dee seet nag moom Euh, dafay tënku ci ñetti temps maanaam bu fekkee nit ki dafay seetal nit ki te dellu ci xel mu ramli bii may wax mën na ko seetal wax ko lu passé mën na ko seetal wax ko lu lu présent ak lu nekk ci kanamam maanaam day seet gi day boole ñetti temps yëpp mën na ko wax lu muy dund actuel mën na ko wax lu ne ci kanamam foofu la wuuteeg xaar nga xam ne moom lenn rek moo la tax a jog lenn rek ngay seet ndax bu dee seet bii nga xam ne ci xel mu ramli lu ci bari danaan la seetal ma rek waaye du préciser nag dëgg dëgg dëgg moom lan la bëgg a seetlu loolu mooy mooy mooy mooy différence mën na ko mën na ko itam préciser même bu ko préciser itam ba tey mën nga jaar foofu ci xel moo ramli pour pour seet ko kon ñaar yooyu rek mooy yi nga xam ne ñun moom la ñuy ci wàllu seet muy xel mu ramli boobu ma wax te ma wax ne dafay dellu ci biir xam-xamu biddiw bi xel mu nujuum ak li nga xam ne moom moo di xaar ñaar yooyu la ñuy jëfandikoo bu dee yeneen ji ci des nag xëy na gëstu nañ ko ngir kuy jàng ne da nga ko war a xam waaye duñ ko jëfandikoo ndax euh, dafa am lu ñu sàmmoonteel moo tax waaw. ndax nit ki moom ñu seetal ko aajiwul mu ñëw ndax li ñu soxla ci moom bu ñu ko amee rek mën ko seetal te soxla ci comme information mooy turam moom ak santam. turu yaayam ak santu yaayam loolu rek la ñu soxla bu ñu amee ñaar yooyu rek fu mu mën di nekk bu wootee dañ koy mën a seetal nga xam ne bu coupé dans quelques minutes Euh, bu wootee dañ koy mën a wax li nga xam te moom la seet bi génnee voilà loolu noonu lay demee waaw. waaw nopp nopp moom moom it moom it defal ko nit jarul muy ñëw maanaam soxlawul ko lu dul xanaa eh, nga gis ne xëy na kii xam dafa taxawee ci loo xam ne mënees na koy jox lu mu takk te loolu sax nag ñun tàmmuñu ko lu dul xëy na nit kii forcé ñu ci ndax buñ lay jox loo takk du ñëpp mën a takk ay téere ñaareel bi itam fekkee liñ lay jox xam nga nit mën na ko dugal ci wan yu mel noonu yëpp te day am ay tur yàlla ak yu mel noonu moo tax ñu takk nag ndax ñu dañuy takk dañuy jox nit mu takk waaye def loo xam ne daal moom da nga koy suul wala nga def ko neneen yu mel noonu la ñuy jëfandikoo wala ci yoonu xaatim léegi bu ñu amee ñoom ñaar seeni tur ak seeni sant rek ñaar ñi nga xam ne ñooy bëggante wala ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk ci ab sëy te am problème euh, maanaam daal daañ gëstu ba wóor ba mu wóoru ne ne maanaam ñii seen relation lu dëggu la par exemple ku ñëw ne kii dama ko fas yéene def soxna ñu gëstu ne loolu xëy na lu lu dëggu la ci moom wala boo xëy na ci biir mu wane leneen te yow amoo pas-pasu bàyyi yu mel noonu foofu lañ koy jëfandikoo wala ñaar ñuy sëy te am problème ci seen diggante ñu war leen di war leen di bu baa lañ jëfandikoo nopp noom nag yoon yi ñu koy jëfandikoo bari na par exemple lii ma génnee nii lii ak pas la dañ koy jëfandikoo ci nopp nga xam ne fukki pas-pas lay doon ak ñaar nga xam ne kuñ fi pas moom gën jaay yàgg ñetti fan incha allahu taala da ngay gis résultat bi euh, surtout bu dee nag ñi nga xam ne seen pas-pas du diine ñoo ñaane buñ leen di nopp duñ jëfandikoo alxuraan pas-pas bi la ñuy jëfandikoo maanaam ay pas la ay jat ay ay naar ak yu mel noonu nga xam duñu ay jullit boobaa moom duñ jëfandikoo alxuraan duñ jëfandikoo turu yàlla su boobaa pas-pas yi la ñuy jëfandikoo maanaam ak jat la rek goo xam ne kii di tafli di fas ba mat am na loo koy booleel dégg nga def ko fa nga koy def donc a alaa kulli xaalin ak ku mën di doon nay nit kuy nooy rek ñett fan mu jàpp waaw gën jaa yàgg laa wax mën na am 24 heures jàpp waaw kon li benn la ci maanaam pas-pas bi fukki pas-pas lay doon ak ñaar bu dee kànnaar bi itam ngay gis moom it dañ koy jëfandikoo ci wàllu kànnaar bi ci wàllu ci wàllu ci wàllu noob mais nag bu dee kànnaar bi moo ëpp lii doole ndax kànnaar bi moom ëpp na noob rek maanaam dañ ciy noob noob xam nga ci wàllu sentiment lay dox bëgganteeg yu mel noonu waaye ñaar ñoo xam ne sax bàyyi ak doom nga xam ne dañoo desee déggoo di doom bi bëgg jaar weneen yoon woo xam ne daal déggulul baay ji su boobaa kànnaar la ñuy jëfandikoo pour pour pour pour boobaa duñ def noot mais nopp la ñuy duñ def nopp mais noot la ñuy def wàllu wàllug wàllug euh, wàllug noob kon kanaar gi moom ñaar yëpp ci lay dox bu dee pas bi nag ci wàllu noob rek lañ ko mën a jëfandikoo wee daas ne ko jëfandikoo itam ci meew meew nag ab téere lay doon boo xam ne dañ koy bind dugal ci seeni tur su ko defee ñu ut buteelu weer ubbi ko dugal ko ci buteel bi ci la ñuy def meewu nag bi gas suul ko bu amee 24 heures dafay jàpp ndax mu ngi dépendre ci meew mu woy te néewaa na meew am 24 heures te woyul donc voilà dañ koy defee daal ci façon yu bari bari mooy xam-xam bi nga xam ne damay wax ne li mu ci am ci ay yoon euh, takkuma ko ndax bari waay bi daal. 99 mhm. pour cent mhm. waaw sa sabab bi nag bari na maanaam li ngeen di tuddee cause defe naa ci ci tubaab. Ah, bari na cause yi bari na lool euh, léeg-léeg mu doon euh, ci ci ci nit ki façon façon de vivre vivre maanaam ni muy dundee. façon bi muy dundee euh, ci wàllu lekk wala xëy na ci ñàkk di fonk sport rek yu mel noonu yooyu yëpp mën na ko mën na ko jur. waaye tam am po euh, di fooye sa sa bopp yu mel noonu lu ñuy tuddee xaw ma loxoom yu mel noonu daal masturbation voilà nga xam dañuy fooye seen awra. boobu nag mooy bi ci gën a danger moom mooy bi nga xam ne moom ñaare bu fekkee nit ki dafa da ko da ko da cee nekk ba tële ñëwal ko ku naqaree faj lay doon moom boobu moo ci gën a naqaree traité moom. voilà ci di day day dee maanaam pour siddit yi amati kàttanu mën a yëkkati kii bi problème lay doon mën a si yëkkati sexe bi ñu baal ma waaw loolu da koy joxe da koy joxe en même temps day joxewaale yeneen feebar yu bokk ak new kàttan loolu moo tax mu danger ah ah rab nga wax waaw rab dafay joxe new kartan waaw rab waaw da koy joxe bu bu méttee métti euh, dinaa ci joxe benn signe maanaam képp koo xam ne ñaare boo waajee jëm ci sa soxna bala ngay yegg daanu maanaam jotoo yegg ci moom maanaam fi soxna si di pour ngeen jotee nga xam ne mu ngi def ay yëfam balay pare nga daanu ñaari foo ko gisee lu ci bari rab moo koy waral waxuma ne nag foo ko gisee rab la lu ci ëpp ëpp foo ko gisee rab moo koy waral mënees na koo dindi waaw dañuy dindi rab bi rek daanaka boo dindee rab bi rek rek la nga problème bi du tey dees na ko joxaat nag loo xam ne moom mooy doon ab traitement bu muy bu muy jëfandikoo du doon loo xam nag da nga koy jël jël tey di fàdde suba nga njàkk koo jël doo doo mën dara mais traitement lay doon boo xam ne da ba nga wér Mm, sa deret nekkaat lu normal di circuler dégg nga sa man yu itam da koy da koy da koy da koy da koy da koy baaxal dégg nga ndax léeg-léeg itam xam nga léeg-léeg nit ki ci wàllu ñàkk amam doomam léeg-léeg day dellu ci euh, euh, maanaam ci bu fekkee ne ku góor la maanaam li ñuy tuddee alxaywaanatul man yi maa wallax njaan yi tuuti yooyu di nekk ci ci ci kii bi ci ci sperme xaw ma yooyu léeg-léeg dañuy feebar te ci ab voyage lañ nekk pour ñu dem mm, fekkoon de kii bi bu fekkee amuñu benn kii bi pour ñu dem du du yomb maanaam ñoom dañuy dee ci voyage bi. waaw ça dépend nag ci ci ci ban façon la ndax su fekkee ne yëfi rab da cee laxasu su boobaa moom mën naa jël mën naa diire ça dépend mën na diire mën na dem ba 15 jours. voilà mën na dem ba 15 jours bu fekkee rab da cee laxasu bu fekkee ne rab laxasu ci nga xam ne néew kartan rek la wala dañ ko takk xala wala dafa yoom yu mel noonu su boobaa du diire moom maanaam li ñu ku ko judduwaale ne ku ko judduwaale moom mënuñu koo faj moom déedéet loolu loolu mënuñu koo faj moom waaw bu fekkee da koo judduwaale moom mëne su faj moom hmm. hmm. hmm. rawaan raawaan dëgg la waaw waaw am na am na gu wuute nag ñu bari dañ leen di dañ leen di jaawale am na lu ngeen di wax ci tubaab nature ñu ci bari dangay dégg ñu naan diw rawxaanam ngelaw la wala suuf la loolu erreur la nit du am rawxaan nit tabixa lay am mooy li ngeen di wax nature ci tubaab te nature yi ñeent la muy sawara ak suuf ak ngelaw ak ndox voilà ñeent yooyu moo am léegi nag loolu ci arab yooyu la nit ñi di faral di wax xoolal ma sama rawxaan ba xam lan la wala xoolal ma sama sama waaw xoolal ma sama rawxaan ba xam lan la fekk tudd rawaan baat bi ci la ñuy juum rek rawxaan nit du ko am rawxaan ki ki jàng xelmul xawaatim maanaam xaatim niñ koy dogee ba mën ko mooy soxla rawxaan c'est-à-dire lu muy créer la loo xam ne bu dogee xaatim bi ba noppi da koy su ko defee mu wërale ko xaatim bi benn ndaw la boo xam ne mission da koy doxloo ji mission rek ak leer la goo xam ne yaa koy créer yow sëriñ bi dox la jiku mission pour mu gën a gaaw a sotti loolu mooy solo si boobu maanaam boo bëggee aaju bi gaaw a faju ci ngay créer rawxaan eh, moo tax baat yi ngay gis ñi jeexe yaa ilu yëpp ñaare turu rawxaan la da koy créer nga wërale ko xaatim bi am na nuñ koy defee donc loolu mooy rawxaan mais la ci des ñi nga xam ne moom la nit ñi di wax seetal ma sama sama ce qu'on appelle sama rawxaan loolu tudd rawxaan mais tabixan la tudd mooy nature rek bu dee eh, bu dee bu dee rab nag la Eh, ci biir jinne maanaam espèce laa ko mën a tuddee daal xam nga ñun ñëpp ay doomu aadama lañu n'est-ce pas ñun ñëpp ay doomu aadama lañu mais ci biir doomu aadama di nga gis ñi ne ñi pël ñi ne ñi pël lañ ñi séeréer lañ ñi ñi joolaa lañ soose lañ exemple boo ko gënee ubbi mu gën a yaatu ñu ne ay ñii ay ay tubaab lañ ñi ay naar lañu dégg nga eh, ñii leneen lañu par exemple Euh, ñii leneen lañu gis nga ko noonu noonu la demee léegi tam rab itam noonu la met ci biir jinne jinne dafa am ay façon rab benn la ci biir rek am na amirul bayti amirul xamaama am rab bii ci boppam donte moom moo ci gën a siiw lu tax mu gën a siiw nit ñi gën koo xam moo ci gën a sonal nit mooy dugg nit ñi léeg-léeg yenn xale yu jigéen yi nga xam dañuy sol lu xaw a sexe waaw waaw dañ koy faj ñun waaw yombul moom waaye dañ koy faj waaw dañ koy faj waaw mais nag nit ki mënul faj euh, rab bi te xamul ban façon rab la il faut que mu mën ko identifier xam ban façon rab moo ko dugg waaw xam na xifriwut mi ne jinne xam na sayaatiin sayaatiin yi nag ñi nga xam dañ jëfandikoo xam-xam bu ñuul jinne yooyu lañu la ñuy lëkkalool euh, ñooy nekk seen ginnaaw di leen jox ay ndigal naan la sacrifier sa doom defal li defal li mën nañ ci yegg ak yow foo xam ne sax daanaka aljana day xaaw a araam ci yow su ko defee ñoom ji jinne ji door laa defal li nga bëgg voilà mhm. c'est possible a jàppandi la waaw Euh, surtout bu dee fekkee ne xëy na nit koo xam ne dafa am ko mu nekk loon lu mel ni wàllu soxna ak yooyu xëy na mu mu xëy xëy bëgg a génn ci sëy wala dem daal ñibbi mu bëgg mu dellu si am na téere buñ koy jox bu ko takkee ci néeg bi am na wirdu yu muy àndal bu ñu ko defee rek maanaam ñun buñ toogee di def wirdu bi maanaam ginnaaw buñ ko joxee téere bu mu takk ko ba noppi buñ toogee di def wirdu bi ñun balaa ñuy pare fu ñu toog di wirdu ndaw si dina dellu si ak fu mu mën di nekk maanaam si dina yegg si déedéet maanaam bu ma waaw balaa wirdi bi pare man fi ma toog di ku kuréel balaa pare ndaw si ñibbi si waaw du ko mat waaw du mat waaw waaw waaw jooni joni bu waaw maanaam bu ma bindee tiiri ba jox la ko na la demal takk ko yow foo mën di nekk boo ko takkee rek informé ma ne ko boo ko takkee ba noppi rek man ma commencé wirdi bi bala maa pare muy muy jigéen comme ci mën di doon rek delloo si day nekk lu yomb mais nag bu fekkee dafa nekk fu sore sori maanaam bokk leen menn réew moom di di nga yëg na moom mu ngi ci yoon pour waaj waaw <laughs> waaw lu lu lu lu yéeme la ci déggin waaye lu ma. waaw waaw waaw lii de moom. <laughs> Mhm, mhm, waaw. Mhm. dëgg la waaw. mu yomb waaw. papier moom moom moom am nañ ci résultat bu nekk ñaar nag moo ci mën a am cest di nit ki di ko waaj a déposé wala mu déposé ko ba noppi. booba ñaari ñaari garante laa ci joxe bu fekkee déposé goo ko dama naan la bàyyil ba ma def ñaan bi ba noppi nga dem déposé da ngay déposé rek daal di jot say papier bu fekkee ne déposé woon nga ko xay na fu na dem nga fa ñaan lu mais sottiwul léegi bu ñu defee ñaan yi ba noppi rendez-vous bañ lay joxaat ñoom rendez-vous bu nag ñoom ñoo xam kañ lay doon waaye buñ la joxaatee rendez-vous ala kulli xaalin rendez-vous boobu ngay jëli moom di nga indiwaale say papier bu soobee yàlla. waaw mooy lañ koy lañ koy bu fekkee kuñ mën a yónnee la ay ñaan xam nga léeg-léeg nit nga bañ ko mën a yónnee ay ñaan su fekkee loo ko mën a yónnee la dañ koy yónnee mu jëfandikoowee bu fekkee nag mënee su ko yónnee ay ñaan nag su boobaa lenn moo sës maanaam ñu xool nit ki ba xam ndax euh, ku ñu war a jëflanteel ci wàllu sarax la wala ci wàllu kurus ak xaatim xam nga ñiy ñaanlu ñëpp ñett lañ rek ñett ñooy ñaan lu na koo xam ne sarax rek mooy rek régler mbiram kese amut leneen loo ko mën a defal mu jàpp lu dul sarax seet day am waaw man eh, man du ma ñaanal kenn te seetlu ma ko boo ma woon di ma ñaan lool sax te waxoo ma seetal ma dinaa la seetal ma seetee say mbir ba noppi door laa wax waaw ndax ndax ndax sëriñ bi boo ko waxee seetal boo ko waxee ñaanal te waxoo ko seetal ma it euh, mooy li may ci logique boobu laa jëm cest à bu fekkee seetaloo ko doo xam fan nga ko war a jaarale pour ñaanal ko am na koo xam ne sarax rek mooy régler mbiram ci logique boobu laa jëmoon am na koo xam ne nag sarax rek lu mbiram waaye xëy na lu muy takk lay doon wala da koy daggal xaatim wala book lu muy sangoo lay doon wala yu mel noonu wàllu ñaan daal waaye du doon sarax am na koo xam nag faw mu boole ñaar yi maanaam mbiram sarax dina ci bokk waaye itam wàllu ñaan dina ci bokk ñetti ñooñu rek ñoo am ci ñu ñaan la te boo ko seetul doo ko mën a xam seet gi itam faw nga sukkandiku ci biddiwam pour mën ko xam moo tax kon xam-xam biddiw mënul ñàkk dégg nga loolu moo ñu dugal ci xam-xam biddiw mënul ñàkk faw nit ki maîtriser ko xam nit ki ban biddiw la bokk ndax nit ñi ci ñetti biddiw yi rek la ñu judd biddiw boo xam ne nayire la maanaam boo xam ne dafa leer ki judd ci biddiw bu leer bi addinaam dafay neex maanaam du am benn jafe-jafe ci addinaam maanaam lépp lu muy sumb rek loolu day nekk lu jàppandi facilement du soxla muy dem di ñaanlu wala dara am na ku judd ci biddi bu lindim crise kooku nag mooy ki nga xam ne bu ñaanlawul addinaam lépp ay tolof lay doon dégg nga maanaam ay ñàkk ay wéradi xol bu naqari dugg kasu génn yu mel noonu waaw waaw loo dem day échec kooku mooy ki judd ci biddiw bu bu ñuul bi am na koo xam ne biddiw bi mu judd dafa boole ñuul ak weex maanaam leer ak lëndam ñi ëpp ci doomu aadama yi nag ci biddiw boobu la ñuy judd waaw nga xam ne tey dañuy bëgg suba ñu mer tey ñuy wér suba ñu feebar tey ñu am suba moo am tey mu baax suba mu naqari ñi ëpp ci doomu aadama yi nag ci biddiw boobu la judd léegi nag boo xool nit ki boo xooluloo nit ki doo xam ban ci ban yooyu ci yooyu la bokk te boo xamee ci ban ci yooyu la bokk di nga xam tabiam di nga xam fan nga koy jaarale pour mën ko ñaanal. soxla na ko lool sax waa muy muy ka muy kaaraange kaaraange nag la nit ñi gën a sàggane fii may wax ak yow ñi ñaan lu ñëpp bu dee 100 pour cent lañ jàppal ne 95 pour cent yi maanaam li ñu lay ñaanloo moom mooy wàllu ubbeeku moom ak bayre loolu moo leen teel moom waaye lu néew ngay gis ko la ñaan lu kaaraange te jamono toll na fu nga xam ne nit ñi dañuy war a fonk kaaraange surtout lii ma gis muy ñëw maanaam ku fekkul nga aar sa bopp maara tax loolu nag maa ngi maa ngi prêter attention nit ñi surtout ñi yëngatu ci wàllu aar di fis lu bari nañu ko bàyyi xel bu baax a baax. léegi bu dee wàllu kaaraange ak bayre ak ubbeeku yëpp lenn lu ci nekk ñu ngi ciy defar yéeme yéeme ci ci ay cangat moom cangat nag lay doon moom cangat. cangat lay doon yoo xam ne dañ lay jox nga sangoo ko bu dee ci wàllu kaaraange euh, bu dee ci wàllu bayre bu dee ci wàllu ubbeeku euh, surtout ñi nga xam ne xëy na cat de la naa jàpp ak yu mel ay cangat lay doon. dégg nga bu dee ci wàllu bayre itam kasaalika ni ki noonu kon bu dee nag xëy na ñi nga xam ne ay góor lañ da te am am bëgg-bëggu di takk ay ndomba yu mel noonu bu dee kaaraange moom dees na ci defar ndomba yu ñu takk ak yu ñu jëfandikoo bu dee ci kaaraange bayre nag damay wax ne jaaru bi ñu am rek dama ko fàttee génn doy na ci sëkk mooy jaar yi ma takk defe naa doy na misaal jaar bi am na kaaraange gu doy sëkk am bayre bu doy sëkk am itam ubbeeku gu doy sëkk ci wàllu wàllu wërsëg